وسرت برب الحر جزي الجود والعفو مع المصطفى والله ولي مولد صفي وسرت برب الحر جزي الجود الفدرالية Mbaye Sall jëwriñ yoo xam boo teewal suñu tasaare bi am léwal liggéey bi ñu koy sant ak jëwriñ ko àll yëpp di sant rek di gërëm nag soxna maam Diarra Mbaye bi nga xam ne mooy soxna si bi ma ne gis gën mu ne woon nag ren li sax daaw da daan teg rek mu ne waaye daf ko bëgg a présental moo tax mu def dressage bi da xawoon naa yéen mbir mi waaye lii nag lii rek moo néew la ci li mu def ci waaye dafa bëgg rek wan ñëpp ni maanaam sëriñ bi rek xam naa loolu moo war a di sant ñi ñaan mbooloo a sant yàlla rek di gërëm suñu sëriñ fii ngeen nekk ne mooy kër sëñ Bassirou Bara Mbacké mooy sëñ Bass waaw si moom lañu jébul bañ nekk xale ba tey mu ñëw ñu ànd ak moom ba yàlla def lu gën mu dem àjjana bàyyi ñu fi ñu nekk ak doom yi sëñ Abdou Aziz Mbacke Majalis mu nekk suñu sëriñ nekk suñu xarit waaw kër gi maanaam mooy suñu lépp ñun ñun fii mooy suñu ñun bu ñu ñëwee Touba fii la ñuy toog màggal ko ba génn ba ñibbi te duñu génn kër gi waaw parce que ñun xam nañu fii ñun lu ñu defal maanaam ba ñuy xale ñu fu ñu eggoon fu ñu yemoon ak fu ñu egg si xam nañ ko ngir jëmb sëñ Bassirou Baram yi te waxoon nañu ko nag nee nañ dina baax waaw dina baax lépp na lu ko war a mooy sëñ Abdou Aziz Majalis sëriñ la exemple sëriñ exemplaire la sëriñ bu exemplaire la boo xamee la lépp da koy teg ci yoon ba pare du sonal kenn lu yàlla dimbalee sagal nu ba nu fekkee démb fekk tey kooku nun sunu ndam la waaye loolu yëpp nag ba ko si yàlla ndamee da ko jaarale sëñ bi da nga fekk na ñuy waxtaan loolu ci biir taalu bi kii nag koo fi gis rek mën naa wax ci sëñ bi loo xam ne maanaam dana kawe njort ndax yaatu na ndax boo amee sëriñ mu bëgg la nekk sa baay nekk sa maam di la dimbali foo mën a nekk mu loo mën a nekk mu jàppale ci kooku sant yàlla la sunu borom dimbalul kenn taamul ku mu la booleel sëriñ Touba dimbalul kenn taamul ku mu la booleel ñun nag Cheikh Bassirou la ñu booleel mu wëlbatiku boole ñu sëñ Aziz Mbacke ñu ñaan nag mu yàgg fi lool te wér ñu ngi koy siyaar di ko nuyu waaw Mbacke Balaye si di bég lool mooy sunu wéeruwaay su ñu ko gisee rek xol yi sedd waaw bis bi moom màgg na te ñëpp bëgg nañu yéen tam ñu leen di ñaanal seen télévision bi yàlla ngeen dem am ci ndam li ngeen ci bëgg yàlla na suñu borom defal waaw ñu fekk lépp nag bokk ndax lii yëpp ci liggéey sëriñ bi la lii yëpp amul woon téléphone amul woon dara amul woon ñu dem a dem ba internet yi am digital bi dem ba télévision yi am kon loolu yëpp yokkute la waaw te nun ban fi nekkee wéetoon nañ fi lool ak magu taalibe ñu fi fekkoon waaye mbir mi dox na dox na baax si fii fi mu ne la ñuy liggéey liggéey nañ ko sëñ Touba nag la mu liggéeyoon suñu borom moom la indi tey ñëpp ti fi fi mu ne sant rek a fi ne ñu ngi sant bu baax nag mënuñu amuñu waaye ki ñu àndal teewalul dara loolu nag ndimbal suñu boroom la loolu lépp nag ni ngi koy jël nag def ko soññ nag fas yéene gën a góorgóorlu waaw di wéy ci ndigalu sëñ ndax ki nga xam ne maanaam nit ki suñu borom bu la ndamalee dimbali dalay lay waayam da nga wax ji mu boole ñu ak Serigne sëñ tubaa boole ñu sëñ Ba mu boole ñu sëñ Abdou Aziz Mbacke moom tamit gëstu ci yoonu sëñ Touba rek moo ko tax a jóg waaw ba mu nekkee maanaam maanaam ak sëriñ ba fi mu toll nii ci gëstu sëñ Touba fii xam xamal mbooloo mi maanaam ci nu mu doon sët sëñ tubaa ba pare ndax nit ki tam booy ànd ak moom da war a xam dara ci moom sëñ tubaa kenn mënu koo xam waaye nag am na ci loo xam ne mën nañu koo mën a baaxee te mi ñu koy baaxee te lu mu lu mu lu mu mën a toll rek rëy na ci ñun mënuñu koo jeexal mooy wéy ci ndigal jaamu yàlla nangoo liggéey sëñ Touba kenn mënu cee jëriñu te liggéeylu te liggéeyloo woon waaw nit ki nag boo nee la ma gën a bëgg duma ko joxe la nga bëgg doo ko ma a waaw nun nag lañu bëgg sunu dañ jël sunu ndaw jox sëriñ bi ñu dem ba toll ni nekk ay nekk ay góor yàlla te xoolal lu xale bu am vingt ans lu mu mën a yëkkati mën nañ ko waaw yëg-yëg bi may am mooy sant yàlla d'abord ci li si yonent bi di sant euh, Serigne Bassirou Bara parce que bu ñu amee tey soltani soltani ne ba sol ko def sécurité te grâce à Serigne Bassirou Bara te li may wax ni euh, lu leer waa kër gi la euh, may def karaté te boobu defaguma sécurité laa nekk ak moom bu dem ba lii dab ma ci moom moo demee ba soltani nekk ci professionnel moom moo waral loolu te wax naa ko ci jotaay bu nekk nag te bu ma demee ba nekk professionnel liggéeyal Sëriñ Touba moo tax ma dugg ci moo tax Màggal Touba Mbàkke Kajoor gàmm laylatul xadar fu ma mun di fekk fii ci dax ci Sénégal moom moom moo mun mu sama cër kon dañ ci sant yàlla bu baax a baax bi ñu bi ñu ci boolewaat leen di ñëw fekke màggal bi ñëw teew fii ci barabu Serigne Abdoul Aziz Mbacke Madialis di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te moom tamit dafa ñëw rek lépp mu defar ko ba mu baax ni ñu meloon ak waajuram noonu la mel ak ñun kon lépp lu mu dugg rek ñun dañ ciy dugg ba jeex tàkk waaw di sant di ko sant bu baax di sant waa daara ji aussi kër gi yëpp ñëpp ñëpp vraiment dañ ñoo yëg safoo ñu ñun nga xam ni ñoo yore wàllu sécurité bi yëg-yëg boobu daal am naa ko ci ku baax waaw. yëg-yëg yi ñu ci am moom dafa fort. ndax lu bare fii lañu fekk lu ko tàmbali si sëñ bi sëñ Basiru Baara mi waajuram ba waxtu bi moom mu wutu ko fi tey matee ko sëkk maanaam liñ ci yëg moom maanaam mënuñu ko wax lépp xanaa di sant suñu borom baax di sant sëñ Tuubaa di ñaan rek mu yàgg fi ah, di yàgg ñu yàgg di ko ànd ak moom te li muy def nii yàlla na ko suñu borom jëmale ci kanam na moom fi sëñ bi jaar rek rek la jaaroon waaye nag dafa mel ni barke gi fi sëñ bi bàyyoon lu ko fooxa mu ngi fi waaw lu ko fooxa mu ngi fi ah macha allah ah, am naa dañuy nuyu suñu Abdou Aziz Mbacke Majalis mooy suñu yër suñu suñu yaakaar tey ëllëg ñu koy ñu ngi koy nuyu di ko jox ah, wàccuwaayam waaw sant rek xam nga ah, daaw amoon na ak daaw jéeg mais ren aussi ñu ñu demee nii ñu ngi waaj a fàtte sax daaw ndax lu ñuy war a sëñ moom amulay tànk ginnaaw ay tànk kanam la am vraiment nu mu demee nii rek bu fi yemoon sax mën nañ ne neex na parce que lépp mat na tey ku dem ci gétt yi dafa ne ci ay nag ak ay xar kenn xamul mu doon donc xéewal yi mi ngi ñëw saasu ne donc mën nañ ne vraiment xëy na màggal gi suba la mais tey mën nañ ne lépp mat na lépp nag sëñ Abdou Aziz Mbacke Majalis moom kese la vraiment moom muy màggal ak lu mu munti doon alalam yëpp day ñëw da koy da koy jar mu def ko ci bés bi vraiment macha allah ñun moom sant nañ bu baax a baax a baax baax ñu ay suñu xool dafa sedd si moom muy suñu sag aussi di yoonu murit muy sagu islam moom suñu Abdou Aziz Mbacké donc ñu ngi koy sant di ko ñaanal yàlla suñu borom musal ko si cat musal ko si cat ñaan yàlla kattanal ko ñaan yàlla aussi bëggam si sëñ Touba muy gën a yokk muy gën a yokk ci barke borom Touba incha allah waaw hmm. dernier kàddu bi mooy mooy di sant rek di sant di ko jiital si sëñ bi di sant jëwriñ ñi ak mbokk taalibe yi fépp fu ñu ne parce que bu ñu nee màggal Touba doonul yëfu murid kese parce que képp kuy kuy doomu aadama que ça soit nga nekk catholique wala nekk ci beneen tarixa ñëppay ñëw màggal si yeneen tarixa sax dañuy jël pareen saay seen alal di ko di la ko yox di la ko yóbbante waale ci màggal donc ñu ngi sant bu baax instant yi ma nekk ñi ma yëg sama xol dafa dafa doy waar bànneex laa yëg sama xol vraiment di leen sant yéen aussi bu baax si seen taxawaay vraiment seen taxawaay rafet na trop wax seen télé bi muy Galaxy Galaxy TV Sénégal vraiment yéen a xam fa ngeen bëgg àgg yàlla na ngeen fa egg ci barke borom Touba jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw nekk fii ci kër gi mooy li euh, ñooy commission sécurité ñoom ñoom ñoom baara jàng bamba jigéen ñaa am na ko jigéen ku nekk si ndeyloo ñooy gérer loolu at bu jot nag ñi lañ koy defee ci kër sëñ bi organisation boo xam ni ku nekk am na wàllu woo féete waaw kon boobu ñu ñaan rek at bu jot ñu koy gën a mën yàlla may ñëpp wér ba ñu dajeeg ngërëmal sëñ Touba waaw di dégg seen taxawaay maanaam ngeen ñu taxawoo ba ba ñu mën a jàllale suñu message yëpp ñu ñaanal télévision bi taw feex ak yu bare bari bari euh, sëñ Touba dafa ne màggal maanaam berne la wax màggal berne léegi nag euh, bu ko defee gan yi ñoo tax ñu wax màggal leen bu ngeen ñëwee ñun dañ ci xaar suñu tànk mbéy ba lépp loo xam ne rek di teewoo ngeen ko ñu seeni i bëgg-bëgg ngir euh, maanaam ngeen bëgg dañ ci taxaw loolu lañ seen di maanaam bu ñëw rek ñu gis boppam ci màggal waa kër gi nag kër sëñ Tuubaa bépp murit bu ñëw rek maanaam lu murit sax bu ñëwee maanaam euh, day gis boppam ci màggal nga ñaan yàlla rek teewe ko at yu bëree bëri ñaanal sëñ bi maanaam moom tam gudd fan ak wér yàlla may ko tal ak mën yàlla guddal fanam ci liggéey sëñ Tuubaa ba mu am ci ndam saqiyun bila man ala man yulayb najibun ajibun naa عجيب مسبب مسيح ملاس وماء ومحسن نسيب حسيب صور Hosanna. بين الوسال

Me. You. أجل المسكين كسبت بجاه النار كسوت كما أتهم تزاول لجائها ومن كبر خلقس يا خير من فكا كسفت دجا قلبي كل حميده